jàngeen jëf guddik yonent bi tey ji lañu koy màggal daanaka ci àdduna wërngal këpp yéene kaay yu bari xëyee ci tey réew mi quotidien di fàttali ne ab bidaala bi nga xamante ne mënul ñàkk faw ñépp daal di koy fàttaliku ci biir yéene kaay groupe réew mi network bi ñu ñuy fàttali ni kon diwaanub ndar géej ñoo doon njëkk dalal li nga xamante ne mooy guddik gàmmu gi laata sax tiwaawoon guddik tey gi laas quotidien di ñu xam xamle ni kon guddik sikar la ndax day fàttali keroog kon ba yonent bu tedd bi daal di gane si àdduna muy ab guddi bi nga xamante ne kon bu yiw la waaye tamit dañ ciy sàkku ay ñaan dëgg ñaani nag ñu koy amal ci gox yu bëri waaye atum ren ji moom Medina Baye foofu la ñu bëri daa di wutali Sud Quotidien di xam ne ni kon gannaaw ba Tiwaawoon daa di jëlee dogal ci ñaareelu at bi nga xamante ne daf ñu fekk ci mbasum covid 19 bi nekk taalibe bu ci nekk mu daal di koy def fa mu nekk Sud Quotidien di ñu xamal ni kon ren ji gannaaw mbasum covid 19 bi fi nekk ba tey moo tax Tiwaawoon daa di jël dogal mbooloo takku ni Medina Baye mooy nekk attraction ci ren ji tey ji l'observateur yóbbu ñu ci biir Medina bay ak yenn dund yi nga xamante ni dañu ko fa nemmeeku gëstu bu yaa mu jagleel ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy awsa yi waaye tamit yaru baay yi nga xamante ne ñooy dund foofu ca Medina Baye gàmmu 2021 bi yéene kay groupe Futur Média bi daal dinay dikkaat ci secret jumaawu Maodo bi nekkee ca Tiwaawan élection locale di jib si Antoine Félix Diome jëwriñ ji ñu dénk kaaraange bi réew mi mu mel ni xaal na yoon wi nga xamante candidat yi war nañ ca jaar enquête yéen di ko dëggal Sud Quotidien tamit di xam ne ni kon jëwriñ ji ci boppam dëggal na ni parrainage moom du ñàkk dina am te candidat indépendant yi faaw ñu am lu toll ci fukk ak ñetti junni signature laata ñi mën a bokk ci xëccoo gox-goxaan yi xëccoo gox-goxaan yi tàmbalee tar lool moo tax Vox Populi jox kàddu gi kii di Amadou Gueye bu UNIS nga xamante ne lu mu waxul Macky Sall ak opposition bi da ko fàtte ci biir yéene bi sañ bi Gueye xam ne ni kon bu fekkante ne njiitu mi war naa ñàkk élection locale yi du ko waral lu dul jafe-jafe yi nga xamante ne sénégalais ñu ngi koy dund ci wàllub njëg dund gi waaye tamit gouvernance bi ci boppam moom njiital UNIS di xamle ba tey ni Macky Sall waruta nekk candidat ci atum 2024 bi ñu dëgmal dina doon candidat am du ko doon xalif général bu Medina Baye moom wax na lu leer ñi nga xamante ne ñoo yëngatu ci géewu politique gi Cheikh Mouhamadou Mahi Niass di yëgle ci Walf Quotidien ni Sénégal ci boppam moo soxla ay njiit yu bees génération bu bees leeg male moo tax Benoît Sambou ci yéenekaay bi di leen l'info di mel ni kuy jàngal ñenn ci ay ñoñom bokk na ci sax Doudou Ka ak ñi mu àndal ci fitna gi nga xamante ne moo xewoon ca Sikicoor te ñu leen di ci jam baaraamu tuuma moom jëwriñ ji nekkit responsable APR ŋàññi ci doxalinu ay naataangoom di leen fàttali ni kon politique gi ñëppoo ko sekk te fitna moom war na ci mën a ñàkk yoon mënul ñàkk ci coowal passeport diplomatique yi nga xamante ne moo lëmbee assemblée nationale naka noone ministère des affaires étrangères ak sénégalais yu nekk ca biti réew libération di fësal ni kon ay mbóot la ñu sulli ci ministère boobee nga xamante ne Aïssata Tall Sall moo ko jiite yéenekaay bi di xam ne ni kon taxawaayub jëwriñ ji ak li mu fësal dafa mel ni méngawul benn yoon ak li nga xamante ne moom la enquête bi biral di wax ni am na ñi am ci passeport diplomatique yooyee te ay kayit yu baaxul la ñu daal di yóbbu foofu waaye tamit ñenn ñi sax amuñu ay di d'identité ñi amul li mot di def lu ñu leen santaanewul ñu ngi tamit ci wàllub wërgu yaram yéenekaay bi di enquête dikk ñun ci bérébu fajukaay yi nga xamante ne ñu ngi def seeni liggéey bi te teguñu ko ci yoon enquête duppee ko sax ab business mortel maanaam buy faat ay bakkan te ñu koy nemmeeku ci réewub Sénégal bu ñu sukkandekoo ci kàdduk docteur Henriette Diop ci téeméer ak ñaar fukk ak juróomi bërëbu fajukaay yi nga xamante ne ñoo nga tu ci wàllu privé bi te nekk ci ndakaaru juróom-ñaar benn ya rek ñoom ñoo dëppoo ak yoon nekkoon yeneen ñu ca des faaw yoon daal di leen topp te teg leen ay daan ñu topp muy saar ba ca Paris gi mu nekkoon doon teewee bi nga xamante ne patronat francophone bi moo ko fa doon amal réew mi quotidien xam na secrétaire d'État bi ñu dénk wàllub sénégalais yi nekk ca biti réew layal na fa bu baax a baax li di programme Sénégal émergent ci biir ndaje boobee nag njiital MEDES di Mbagnick Diop nga xamante ne tamit moom mooy premier vice-président bu groupement du patronat francophone teewee na ko te wax na ci xalaatam ci ponk yu bëri fàttewul tamit benn yoon Sénégal ak taxawaayam dayoo gi nga xamante ne am na ko tamit ci biir francophonie bi dayoo gi deer waroon a am ci programme xëyub ndaw ñi na ni kon koppar gi nga xamante ne waroon nañ ko jot ngir mën a financer ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndaw ñi daanaka ay jafe-jafe képp lañ ciy jànkonteel te lu ci bëri xaaj ga sax duñ ko jot leeral yi ci biir yéenekaay bi di la Quotidien jox kàddu gi ki nga xamante ne kon mooy pap Amadou saar mi nga xamante ne moom moo ko jiitee Sadio Mané di wéy di wane boppam ca Premier League muy Angleterre ga mu nekk ci njeextolay bis bi la daal di dugal téeméeru bit léegi doomu sénégalais bi motal na téeméeru bit yi nga xamante ne dugal na ko ci boobule championnat niki samedi la goon ci kanamu Watford ñu daal di leen daan juróomi bal ci dara yéenekaay bi di stade di xam ni kon moom gone bambale bi mooy ñetteelu joueur africain bi nga xamante ne def na jaloore bi nu mel ca diwaanub Angleterre Boy Niang ndaxam dina def jaloore ci kanamu bala gay de ak Tapha Tine muy laaj bu sunu lamb xëy daal di samp ni ki tey ji Malick Thiandoum di ci indi tontu di gis li ni naam moom goney pikin gi am na li nga xamante ne moom la ñuy sàkku ci mbër waaye mënul nekk danger benn yoon ngir ñaari adversaire mi société nationale d'électricité bu Sénégal leen doon may seen revue de presse